Música jërë ngeen jëf te leen ak jàmm ci xew-xew bi réew mi tey alxamis ñu tàmbalee ko ak li nga xamante moom mooy Saint-Louis ginnaaw xale bu jigéen bi nga xamante ni faatoon nañ ko foofu muy Seynabou Ka Diallo ci ñaar fukki fan ak juróom ci weeru mars bi ñu génn am na kenn koo xamante ni daan nañ ko faat foofu nga xamante ni moom mooy Kaolack muy ab taalib boo xamante ni ma nga jógee Guinée Bissau di am nit koo xamante ni jàpp ne wérul moom moo ko daal di jam paaka ci dënn bi ca fa nga ko waaye ki nga xamante ni moom moo def mbir moomu dafa doon daw waaye ñi nga xamante ni ñoo dëkk ca dëkk ba daal nañ ko teg loxo yóbbu ko fa nga xamante ni moo nekk ca police ba ñu wax ci la nga xamante moom mooy doomu Sénégal bii di euh, Pape Demba Wagne mi nga xamante ni moo amoon jafe-jafe fi nga xamante ni mooy euh, moom la ñu defoon euh, benn doomu américain mu daal di say faatu ni moom moo amoon jafe-jafe yi am nañu plainte boo xamante ni ko ca fa nga xamante ni moom moo nekk ca commissariat ba nekk ca Florence moodu moodu boobu nag ñu wax ne dafa ay jafe-jafe ak ay policiers ba ñu daal di def loo xamante ni dañoo jàpp ni wàllu racisme la maire bi nga xamante ni moo nekk tamit ca dëkk boobu sa Florence moom ci mbir mi wax ne dinañ ne yëkkati ab plainte daal xool ñëpp ñi nga xamante ne laal lañ ci mbir moomu ñu xool jafe-jafe yi nga xamante ne andi nañ ko ak lépp loo xamante ne jar na ko dinañ ko daal def ci mbir moomu nga xamante ni daanaka ñu bëri ñoo koy ñaawlu muy siwaa waa rawatina ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ca dëkk boobu di Italie beneen mbir bu deewaar bu xew fa nga xamante ni mooy Fatick mooy lu toll ci téeméer ak juróom fukk ak ñaari nit yoo xamante ni dañoo am li nga xamante ni mooy feebar sida waaye ba léegi kenn tegu bët dañoo réer mbër ca dëkk ba ba fu mu nekk nii ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ca hôpital ki nga xamante ni mooy docteur Habib Ndiaye di médecin chef bu région de Fatick moo ko xamle ci comité régional boo xamante ne ñi ngi ko doon amal euh, ci euh, fan yi ñu génn ñu wax ne nag ñooñ nga xamante ni ñoo am feebaru sida yooyu nag nga xamante ni ñu nga dëkk ca fa nga xamante ni moom mooy Fatick jamono ji ñu leen di wër ci biir réew mi ndax booba léegi ñëw ñu def li nga xamante ni moom mooy seen bilan yu ñuy amal at bu nekk beneen mbir muy docteur bi nga xamante ni moom moo nekkoon directeur bu hôpital bu Amadou Sakhir mbay bu Louga daal nañ ko dàq ci fa nga xamante ni fa la nekkoon ginnaaw li nga xamante ni moom moo amoon ci enquête bi ak la nga xamante ni moo wundu ci ki nga xamante ni moom moo faatu foofu di astu soxna mbir mi nag ki nga xamante ni moom moo nekk procureur bu Louga moom tamit daal na am na yeneen enquête yoo xamante ni ñi ngi koy amal ba fi mu nekk nii juróom-ñetti nit yoo xamante ni jàpp nañu dañoo laal ci mbir moomu daan la leen di daal di déglu ca police ba te na lépp loo xamante ni war nañ ko mën a jël uppee ci li nga xamante ni moom mooy boobule enquête nañ ko def bu jëree nag ay daan yu metti nañ ko teg ci képp koo xamante ni laale nga ci faatu soxna soosu dañu jeexale ak jafe-jafe yu metti yi nga xamante ni moo am ca Afrique du Sud ba lu toll ci ñaari téeméer ak juróom fukk ak ñett ci ay nit daal di faatu ah, ci ab yu metti yoo xamante ni ñooy am jamono ji ci dëkk ba mu nekk loo xamante ni nekk lu njëkk loo xamante ni am na ci biir Afrique du Sud jamono ji nga xamante ni nawet bi dafa jéggi dayoo ba lu toll ci ay nit yi nit daan nañu jugee fa nga xamante ni fa ñu dëkk ay nit yu bëri faatu nañ ba jamono ji sax ñuy wax ni morgue yu bëri yu nekk ci biir réew moom dafa daal di fees ba mënutul jël li nga xamante ni ñoom ñooy faatu ci jafe-jafe yooyu nga xamante mooy am ci biir dëkk boobu li moo gënoon a fës ci xew-xew yi am ci biir réew mi ñu di jox di dajee suba ci yenn xibaar fii ci réew mi officiel la